li nga xam ne nag fa ñu tàmbalee mooy wàllum santé ñu jox ko yitte bu mu yellool ndax lépp lu waay di def di ko nas di nocc wala mu di ko yëkkatee ka teg day fekk mu nekk ci wér yaram moo tax mu nekk point bi nga xam ni moom la njëkk a ngeen indi ci en tout càkkuteefu càkkuteefu sëriñ bi biñ ko xoolee nag gis nañ ni ci càkkuteef yooyu dafa ci am yoo xam ne nii moom daanaka bis bi moo ko tax a jóg exclusivement am yoo xam ne nii dafa war a nekk ay solution structurelle yu durable li nga xam ni moo jëm ci gàmmu gi précisément wax nañ fi Euh, journée de consultation yoo xam ne nii bëgg nañ mu durer ñaari fan te loola la may sabab mooy ci ñaari fan yooyu ñu gën a renforcer en tout cas personnel ba mu jëm ci cinq médecins ci quinze infirmiers ci trois sages-femmes euh, ak euh, disons dotation carburant su ma déggee alors ña nga ca toftal loo xam ne ni peut-être lu lu c'est au-delà du gàmmu mooy dafa nekk benn centre euh, euh, de santé secondaire boo xam ne nii fi mu nekk nii mën nañu wax ni amatul njiit c'est étété parce que alors MCD bi dafa dem faneen loolu ngeen di sàkku effectivement ñu nomewaat benn MCD pour mu mën a ñëw jiite kër googu ba ngeen également benn dentiste bu ñëw ak benn ophtalmo ginnaaw ba ngeen ko préparer vraiment toutes les conditions donc loolu rek alors moo ci moo ci des par ailleurs sàkku ngeen également ci état mu jàpp ci euh, wàllum électricité ci centre de santé boobu ndox mi moom yàlla def na jàppandi na li ci des donc mooy mooy courant bi sàkku ngeen également ñu jàppale leen gunge leen pour que ñu mën a recruter personnel boo xam ne ni personnel communautaire lay doon loolu defe naa ni recueillir nañ ko bu baax a baax a baax incha Euh, ki nga xam ni moo fi teewal MCD euh, jël na engagement que ni ni ñu ko waxee nii bu soobee yàlla dina ko jottalee noonu le médecin chef de district. foofa nag bëggan naa fa taxaw tuuti je pense que lii nga xam ni nii nekk na càkkutéef ngeen jottal ñu ko gisuma dara lu ci ëpp lépp luñ ci def benn waroon na mën a fekk ñu def ci ñaar. waaye yéen a ko waxal seen bopp yéene bi mi ngi fi waaye ñun li nga xam ni mooy suñu waree lu mel nii bu ñu bu àggee ci ñun ñu relayer ko te dafa fekk ni euh, commune Thiès Nord dafa yayoo am centre de santé bu taxaw parce que ci jàngat boo xoolee la ville la grande agglomération de Thiès ni mu tëddee ñaari arrondissement moo fi ne arrondissement Thiès sud ak arrondissement Thiès Nord boo jëlee arrondissement Thiès Sud ñetti commune moo fa ne nga jël arrondissement Thiès Nord benn commune moo fa ne commune bu demee ba gam-gamle périmètre ak tout un arrondissement kon nga xam ni commune boobu du commune bu bu ndaw kon nga xam ni population boobu du population bu ndaw commune boo xam ne nii wàññi nañ fa onze postes de santé kooku yayoo na centre de santé boo xam ne nii la fa nekk lu mucc ayib la pour que mu mën a dékku li nga xam ne dañ ko koy référé te muy jógee n'est-ce pas ci centre de santé donc juste pour confirmer que ni lii nga xam ni àgg ngeen ñu ko incha allah en relation avec les autorités médicales dinañ ci jéem a xool en tout cas jéego yu bari yuñ ci yuñ ciy def euh, incha allah dinañ ko donc relayer niveau niveau régional la ville prononcé wu na ci euh, commune Thiès Nord également prononcé wu na ci je pense que am na benn je pense ni nga ko waxee rapport boo xam ne ni agsi na xañ na ça va faire l'objet d'une exploitation en relation avec certainement l'autorité administrative et le comité le comité d'organisation ngeen xool daal en tout cas nu ngeen ci mën a euh, tege seen loxo pour que véritablement doléance yooyu ñu mën ko saafara dans la même lancée euh, wax nañ fi affaire au service d'hygiène ak euh, mbirum Croix-Rouge moom la ñu boole loolu yëpp day ñëw pour dooleel dooleel santé parce que lépp loo xam ñi ngi koy laaj mu jëm ci wàllum service d'hygiène di ko laaj également ci wàllu euh, set ak sellal loolu pour fekk suñu santé la donc daanaka donc ñoo bokk ñoo bokk jëm heureusement doléances yi ngeen fi wax yëpp di ko service d'hygiène taataane ànd euh, ci ak croix rouge alors euh, ñoom ñëpp pare nañ di jaar rek fan daan fan daan jaar en tout cas ñoom bu ñu bu ñu bu ñu yokkul incha allah duñu ko duñu ko duñu ko wàññi li ci des rek mooy ni ma ko waxee organisation lay doon nest pas ci ordre de passage yi ñoom xam naa ni du ñu duñu ñu bokk ci ñi njëkk a ñëw xam naa du ñàkk mu jiital euh, waa UCG waa euh, assainissement ensuite ñoom ñu ñëw pour mën a pour mën a def le reste bokk ko n'est-ce pas ak Croix-Rouge nga xam ni ñoom it pare nañ pour mobiliser vraiment ay ndaw pour ñëw n'est-ce pas jàpp ci jàpp ci liggéey UCG euh, ONAS wax naa ko ñoom it fañ leen daan xaar rek lañ leen di xaar indi matériel bu doy teel a jóg aussi juróomi fan avant ñu ñëw pour mën a set setal alors euh, set setal boobu aussi Euh, doon na baax bu ngeen ci boolee xale yi koñ bi taalibe yi ñoom it ñu ñëw jàpp ci du euh, ko defee mairie également ñëw jàpp ci ak li UCG di indi en terme d' effectif et de matériel également bu ko defee vraiment ruq-ruqaan yëpp dina dina mën a set incha allah lu jëm ci wàllum euh, wàllum ONAS également wax nañ fi lu tolloog ay cinq camions yoo xam ni dañuy ñëw pour vider vider fosse septique yi loolu ici ñu préciser que ni il faut que ñu euh, lëkkale ñaari ñaari ñaari kuréel yi c'est-à-dire le service bi nga xam ni moom mooy ONAS mais également le comité d'organisation parce que comme ni ñu ko waxee un privé moom mooy def mooy def opération yi donc dafay nekk ñaari diggante il faut que euh, service étatique bi mën a am alors benn contrôle ci li ñuy def mais ñi nga xam ni ñoom lañ koy defal aussi ñoo xam naka lañ bëgg liggéey bi demee na ba tax na ñoom dafay daal di jag ci ñoom yayoo ci ñoom pour ñoom it ñu ñuy orienté euh, bu ñu gisee lu leen ci neexul alors ñu alerter comme ça disposition yi nga xam ne war nañ ko jël pour joyanti ko ñu ñu jooyanti ko alors euh, branchements sociaux yi aussi hein je pense que lu lu lu lu yitteel euh, sëriñ bi la c'est vrai que am na jéego yu bari yoo xam ne nii hein euh, déjà dox nañ ko ci en terme de de réseau hein mais des na ba tey quand même branchements sociaux yi pour ñu pour ñu pour ñu continuer ko je pense que euh, jël nañ note ci loolu et que incha allah dinañ ko àggale le le niveau régional pour que gouverneur man ko man ko répercuter à à qui de droit alors nombre de rotation yi wax nañ ko loolu moom je pense que moom it travail de terrain la rek parce que euh, ce qui est sûr mooy que euh, journée bi déjà luñ ko mën a gën a euh, euh, optimiser rek defe naa ni defe naa ni mooy gën donc li ma waxoon mooy dellu si il faut que mu am benn surveillance de proximité boo xam ne nii service bi moo koy def ak le comité ak le comité d'organisation lu jëm ci wàllum fañ koy sotteek et cetera yooyu je pense que comme nañ ko daan defee te coow amul euh, mën nañ fa jaar ba nga xam ne li ñuy sotti aussi du am benn jeexital boo xam ne nii dina am loraange ci nit ñi wala ci ci alam bi voilà foofu aussi évidemment transversalité ñu fay séentu alors contribution contribution mairie lu jëm ci wàllum seen o ak euh, hydraulique extension du réseau moom it dafay dellu si ak branchement sociaux yi loolu requête la boo xam ne nii alors euh, dafay jaadu évidemment ñu ñu ñu taxaw ci parce que normalement am na requête yoo xam ni bu ñëwee ren ñëw déwén waratul a ñëwati donc loolu mooy solution vraiment structurelle je sais que ku mel ni le ministre en charge de cette question là ku ci sensible la mais faudrait-il aussi ñu it ci suñu plaidoyer effectivement loolu mu di ko mu di ko mën a xam relever compteurs yi wax nañ ko trois jours avant trois jours trois jours après loolu aussi dafay jaadu ci comité d'organisation bi euh, dans les délais ñu mën a communiquer liste bi euh, comme ça ñoom ñu mën ko teel a prendre en en charge alors les point d'eau points d'eau yi nga xam ne dañ ko daan activer également je pense que yooyu hein c'est c'est déjà fait wala ce sera fait hein vous avez déjà une liste voilà très bien très bien parce que loolu quand dafay sax soulager euh, vraiment les, les familles d'accueil hein, en termes de, de consommation. Alors, compteur multiplie aussi facteur de, de, de, de, de disons, de violence la hein, au sein des familles. loolu je pense que loolu bu ngeen ko defee xalif bi ngeen di gën a dimbali parce que moom mooy médiateur social mooy régulateur social moom mooy mur des lamentations donc loolu bu ngeen ko defee véritablement préoccupation yooyu je pense moom ak délégué de quartier alors dina leen mën a mën a mën a soulager de toute façon ñun requête bi dinañ ko def à l'adresse de de SONES pour que les dispositions y afférentes soient soient prises. gàmmu famille Ndiéguène yàlla dogal na sëriñ bi bim ñu yebalee ñu ñëw itam monsieur le préfet dafa am lu mu wax ci njaal benn gi ne. li mu njëkk a seetlu ci commité d'organisation bi mooy xam na ni ñii waxtaan nañ lu jiitu ñuy ñëw muy lu am ndax ñun duñu umpante ak suñu sous-préfet bi ci lenn nag gàmmu gi bu sëriñ bi wootee ne nañ ko waajal moom ci lañ ko ci tàmbalee impliqué moom jot nañ bu baax it dina lay defal compte rendu ci famille Ndiéguène lan lañuy tàmbalee lan la ñu bëgg damay defe ne loolu bokk na ci li nga xam ne mooy tax liggéey bi yomb ñu xamante ñooy daje ñu bokk pas-pas ñooy daje ñu bokk yéene ñuy ñooy daje loolu mooy waral daje bi du jafe loolu itam yal na ko yàlla yàggal bu baax di la seedeel ci turu comité d'organisation bii ñu jiite naw nga xëy na ñun suñu yëgoo suñu réunion suñuy waxtaan waaye ñun itam naw nañ bu baax nii ngay taxawoo liggéey bi yow mm. Mm. di la ñaanal yaag ñi nga xam ne mooy sa staff bi nga àndal ma yorom yi mbay ci suba rek sëriñ bi mu ngi may tudd turam réunion bi ñu ngi waroon a tàmbali neuf heures demi man ba neuf heures neuf maa ngi ak sëriñ bi ci néeg bi tudd na ma leen yéen ñi kenn ku ci nekk turam wax ma seede yu baax ci yéen ma ne koy ma yoroom yi fan yëpp noppalawul pour lii taxaw mu yabal ñu muy njabootam di ay taalibeem ay soppeem ay sopp ñoo xam ne dañu bëgg bokk ci liggéey bi ngir ñu waaj loo xam ne dañuy wax ni am na téeméeri at ak fanweer ak juróom ñaar ñii ne ëpp na ko 137 ans loolu lu ko am dañuy wax ne bu doon nit dañ naan kooku màgget na daañuy dañ itam du ñuy dañ di wax ne gàmmu gi suñu maam ba mu koy def da daan defar ay ngànj mooy ay matt yu mag lañ daan taal teg ko diggante kër gi ak zaawiya bi muy leeral diggante boobu ñuy fanaanee jàng alxuraan ba fajar alxuraan rek lañu mës a gàmmoo gàmmu ki ci njàlbeenam suñu maam booba taalibe la dooleem mooy defar cere defar bëy jox ko invité yi ak taalibe yi ak am du jàmm yi bu fajaree mu waxtaan ak ñoom ñaanal leen muy dox ba tàbbi ci loxoy suñuy waajur suñu maam bi mu laxasee wuy ji boroomam en 1936 maam alxaaji ahmad baro njegéen taawam alxaaji ahmad saxiir njegéen moo ko wuutu moom itam mooy waajuru sëriñ muniiru mii di xalifa bi sëriñ ahmad saxiir ànd ak ay rakkam ndax suñu maam bàyyi na fi fukki doom yu góor ak ñu jigéen sëriñ ahmad saxiir jiite gàmmu gi ñu koy gàmmoo ci ay jafañ-jafañ waaye mosuñoo bàyyi ñoo mooy waral sëriñ bi bu ñu wéetee di waxtaan danaan administration bi lii mu leen di defal ñun bañ ci tolloo ku xam kër maam alaaji xam chemin de fer dañu daan wut ay fil di ko takkante ba mu nekk ba mu dem chemin de fer ñu may leen courant foofu ñu ne amul leetar dañuy dem travaux publics li ñuy soxla ci matériel ci ay tub ay marto yu ñuy daaje foofu lañ ko daan jëli di ko indi di ko ab di ci topp itam di ko lijjanti bu baax daan nañ ko tant itam lu mu néew néew weer gàmmu gi pour man cee gàmm sëriñ bi dafay faral di wax ne ma yéen seen chance mooy administration bi day woo service yëpp ñu toog yéen ngeen wax li ngeen bëgg ñoom ñu wax ñoom li ñu leen di defal ngeen wax ba juboo loolu mooy yombal seeni yëf mooy wane ne kon moom lii ñu ci nekk di président comité d'organisation Serigne Mouniru moo ko nekkoon bi yàlla dogalee mu nekk xalifa rakkam buñ doon wax alxaaji Ahmad Baro cheikhu magu Serigne Ahmad mii la ñoo bokk benn wayjur mu toppoon ci moom Ahmad Baro Cheikhu jóge fa mu jox ko alxaaji Mouhamad Saxiir njegéen ñu ko daan wax duudu ñun ñii ci duudu moomu la ñu toppoon ba yàlla dogal duudu laxas wuy ji boroomam mag ñi dajaloo sëriñ mu Muniiru sëriñ Abdul Aziz njegéen mi nga xam ne mooy baayam ba fa desoon ñun Useynu mii moo toppoon ci Ahmad Saxiir moomu te moom xam na liggéey bi kon na koy jiite ñun itam diiru ñu ànd ak suñu mag ñi dañ daan topp seen ginnaaw di xool li ñuy def moo waral suñu njaboot gi léegi bu ñuy ànd ak ñun di ñëw xam nañ ne balaa yàgg ñun itam daañu leen bàyyee flambeau bi te bu ñu sañoon flambeau bi du wadd mukk ndax lii suñu maam moo ko soso kon ku ñu ciy sotle ku ñu ciy jàppale ku ñu ciy xelal ku ñu ciy dimbali ak lu mu tuuti tuuti rek suñu xol dina la jublu dina la ñaanal bu baax kon service yi fi ñëw yëpp am nañ bu baax yëg-yëg ci ñëw bi xam nañ jamono bi ni mu tare soxla yi ni mu bare am na ñoo xam ne duñ fi mën a toog sax bu ñu ñëwee ba wax la ñuy wax rek dañ leen di bàyyi ñu dem ndax xam nañ ne la ñu la bàyyi ñëw fii loolu lu rëy lay doon waaye ngeen seede ne sëriñ mu xam Mouhamadul Mounir mi nga xam ne moo ñu yebal am na mbégte bu baax xam ne liggéey bii lu mu demee itam ci suba gi rek bi ñu toogee mu ne ma ah alaaji ma ne ko waaw mu ne ma ñaar fukki at juróom man amatuma lu ma leen di wax xanaa ñaanal leen rek yal na yàlla jaarale ko fa mu daan jaar te jaar na fa mu daan jaar ëpp na suñu njort sax ndax ku mel ni monsieur le préfet day wax commandant si yi ñoom xam nañu xam nañu gàmmu gi bu baax suñ sous préfet bi waxi noppi kon luñ ciy waxante rek ñoom mën nañoo wax suñu place mën nañoo décider itam ci place su Serigne Mounirou yal yàlla mottali yéene yi pour bañ a gën a guddal ngeen seede ne monsieur le ak ñi nga àndal ci liggéey bi ñëpp kontaan nañu bu baax yal na yàlla dolli seen sutura daan nañ faral di wax itam ne gàmmu gii donte dañuy samp ay bant di ko gàmmu ñun dinañ ko gàmm am na ay kilifa yoo xam ne yu mag lañ dañ leen di wax ne gàmmu gii su ngeen ñëwee daañu gàmmu su ngeen ñëwul daañu gàmm kon ku ñu ciy jàppale rek defal sa loxo rek ndax ni ñu bindoo du ñu laaj loo xam ne xam nañ ne lii mënul nekk déedéet sëriñ bi jàngaluñ loolu suñu wéy jur alxaaji muhammad njegéen jàngaluñu loolu gis nañ ñi mu daan doxale loolu lañu ñu yar loolu la jàngal suñuy mag suñuy mag jàngal ñu ko ba ñun ci noonu lañuy ñuy dunde kon koo xam ne ñëw nañ ci yow di la tàllal loxo na nga bàyyi xel ci ne lii ñu lay tàllale loxo ñun ña nga ñoo la ciy jiitu ña nga cee def suñu kem karta kenn ku ci nekk nag yal na yàlla may la nga def sa yéene di dalal bu baax itam ñi nga xam ne ay chef de service yu fi ñëw lañ kii nga xam ne waa eaux et forêt dégg nañ bu baax li nga wax kii nga xam ne waa Sonatel ànd ak suñu jarbaat bale di Souleymane moom itam dégg nañ bu baax li mu wax ñi nga xam ne ñoom yàgg nañ ci dëkk bi waa CNO waa hydraulique ak ñooñu xam ne suñu rakk bi ñuy wax màkk kenn ku ci nekk dafa jaxasoo ak moom it ñoo ñu itam xam nañ bu baax liñ ñu doon taxawee yal na yàlla dolli seen mën bu baax waa UCG nag dafa am benn adjoint bu fi nekkoon bu ñu wax jaaji jar ñu daje ñëw ci gouvernance mu toog ci wetu gouverneur bi ci waxtaan nii ma ne ko ñun dañuy bëgg di bale suñu quartier bi monsieur le gouverneur dañuy bëgg di dajale taalibe yi xale yi dëkk ci quartier bi ñu bale quartier bi ma wax ko loolu ndànk ci suuf nii moom mu ne ma suñu sëy am na benn service bu am léegi ñooñu loolu la ñuy def su ngeen demee da ngeen di bind benn lettre ci turu xalifa bi su ngeen ko indee ñoom daañu leen ci jàppale ma ne ko nang ma woon njaw nu ñuy bind lettre bi ma jox ko suñu secrétaire loolu moo ñu boole ak waa UCG xale biñ fi njëkk affecté di Ibrahima mbay mu def fi ay fan yu yàgg kilifa UCG bu ma sa ñëw fii ci Thiès ànd naa moom ñëw kër maam Alaaji tàmbalee ci Ibrahima Diagne ci Ousmane Ndaw ba ci càmm bii fa nekk léegi ñoom xam nañ ni bu baax seen liggéey itam rafetlu nañ ko waxuma la kër maam alaaji mais Thiès yëpp a ko rafetlu senegal yëpp foo dem di leen fa fekk ñoom ñuy daan seen doole sëñ Muniru yéen su ngeen liggéeyee ba wàcc dafay wax ne man li ma gën a neex ci xale yi mooy daf ci am at moo xam ne am na benn xale mu ne moom am na bac ma nga dëkk fële ca taaxi kaw xale bu ñu Pape Diop mu ne waaye comme amul lu mu jàpp ñu woo ko ca jël ko ca moom day bale sëriñ bi ne leen yéen daal ay nit ñu am jom ngeen ndax li ngeen di def ne nit ko am jom moo koy def ay at ci ginnaaw rek nit ñi nanguñu woon liggéey liggéey bi te kii liggéey bu noble la bu baax la kon yéen itam ñu ngi àndaat ak yéen nañu ànde woon ak yenn yal yàlla may ñu fekk gàmmu gi ak jàmm ah sant yàlla bu baax bañu guddal monsieur préfet ndax waxal nga ñu li nga wax nii yëpp di nga énumérer di nga lim li nga wax yëpp ñun nga ko waxal ñun nag remerciement sëriñ bi rek lan doon jotal wax leen suñu yaakaar tasul bi ñu demee bu ñu demee ci moom daañ ko wax ne lañ doon séentu day fekk nañ fa lu ko ëpp ci baax ci méthode ci gindi ak it mobilisation ci chef de service yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk Thiès yal nañu yàlla may ñu fekk gàmm gi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah suñu maam moo ko sosoon muy suñu ndono xëy na ñun ñooy njiit yi waaye gàmm jullit yëpp la hmm. gàmmu Cees yëpp la Cees yëpp lañ ci invité yal nañ yàlla may ñu fekk ak jàmm